dal leen ak jàmm mbokk yi nga xamee ne yéen a ñuy bàyyi xel ginnaaw bi ñu leen nuyoo euh, tey nag euh, ki nga xamante ne bii mooy Abdoulaye Dia di taalibe Daaru Salaam di euh, murit bu mag ku nekk nag ràññee ay jëfam ci yoon wi tey moo indi woon li nga xamante ne bii mooy barkeeloom fii ci ëttub maam Thierno Birahim Mbacke bi di Daaru Moxti ngir liggéeyub yeesalaat liggéeyub jumaay Daaru Moxti ji nga xamante ne bii. ñi ngi koy amal euh, ci euh, kilifteeful Serigne Bassirou Mbacke Anta Niang xalif maam Thierno Birahim ginnaaw bi nag euh, Serigne Abdoulaye Dia mi ngi xamle ne Mouhamed Nassirou Samb mi nga xamante ne bii nii moom la Serigne bi dénk liggéeyam day wóllëreem di yàgg ànd ak moom yàgg ànd ak moom ci liggéey yu bëree bari moo tax lépp loo xamante ne bii nag DG Mouhamed Nassirou Samb mi ngi ci moom Abdoulaye Dia dina ko jox fekk si ba na Abdoulaye Dia yëkkati na vingt millions francs ñëw indi ko ci jumaa yi daaro Muxti ji waaye jox ko ki nga xamante ne bii mooy wëllëreem di Serigne euh, Khadim Ba mu indil ko ko fii ci Daaru Muxti euh, jébbal ko ki nga xamante ne bii mooy euh, xalif maam Thierno Birahim Serigne Bassirou Anta Niang Mbacké